salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di suñu kilifa gi nga xam ne mooy Sëriñ Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdou ak suñu wajur wi di soxna maam Awa Mbakke Falil ngi fii nag ci Daaru Salaam Burki Barka ci liggéey bi nga xam ne Sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Ahad santoon na ko Cheikh Hamsatu Mbakke maam Cheikh Abdou Ahad ñu àndanteeg waa daairatu Majmahun Nurayni bi muy fédération bi ñu awoon fii ànd ak soxna maam Awa Mbakke Falilu fii ci Tuuba euh, Burki Barga di nekk ci liggéey sëñ bi ñenn ñi nag ñu ngi ñu ngi ci woon ci liggéey bi euh, ci mbàcc mi ak njéeri mi ak roñ ngooñ mi yóbbu gerte bi lépp ñu ngi ci woon ñenn nag ci mbokk jigéen ñoo nekkoon ci waa waañ wi ci njiitalu soxna Ngoone Ngom ak Serigne Modou Ndiaye ñoo nekkoon ci waañ bàyyi seen njiite yëpp ngir liggéey liggéey bépp ñu ànd suñ suñ ji nga xam ne mooy jëwriñu kër soxna si muy Serigne Aliou Badara Lay kon xam naa soxna si daal mi ngi ak taalibeem ci sëñ mi nga xam ne mooy Cheikh Amsatou Mbacké mooy Cheikh Abdoulaye te ñun moom duñ doon dul ay taalibe ci taalibe la ñuy doon ci lañ yaru ci lañu nampatal bañ toll nii ay taalibe képp la sax ba faw ba ne ak taalibe rek kay ñor te moom la ñuy sàkku ci suñ keppaar gii muy Serigne Amsatou Mbacké mooy Cheikh moo waral nag ñun ñëpp mbokki taalibe ñu ànd ak soxna si ñëw fii di toggi berne di ko berneel gan ñi ngir yitte yi nga xam ne euh, Sëriñ Sidi jox na ko Cheikh Abdou Cheikh Amsadou moom Cheikh Abdoul kon nag ñu wàcc kàddu gi jox Sëriñ Aliou Badara Lay mu gën a leeral liggéey bi fi mu toll. ah li nga gisee liggéey bi nag mooy ñëpp dañoo wuyu si ngir ki woote mooy Sëriñ Sidi mu seblaat jël liggéey bi teg ko si si am sax moo woo mbooloo mi fii nga ñëw nag muy dal solo maam Mbàkke moo Fallu di kenn si jàmbaaru liggéey bi ànd ko si am sa sangam bi moom nag ba mu jotee ndigal ba tey soññ na mboolem waa këram góor ak jigéen ñu ànd moom si liggéey bi jóge fu ne liggéey si tool yi nekk te si wàllu bend bi ba mu tàmbalee ajjuma ba tey bàyyiwul benn yoon bis bu ne mu ngi fi ak mbooloo mi nekk si mbàcc mi ak jërë yi ak dajale ngooñ yi ak ak mboolem liggéey bi fi am boole liggéey bi nga xam nag daa see dak seddool li muy wàllu xéewal jëm si kilifa yi tegoon si loxo moom moom mi mu liggéey ko mu liggéey liggéey bu sell ànd ko mbooloo mi yëpp lu jëm si kilifa yi ak mbokktaal yoo xam ne day ñëw si liggéey bi ngir lan ñëwoon bàkkeel si tool yi mu toolu bokki barke yi da da daa kon nag ñoo ngi sant bu baax soos mu ngi sant bu baax taalibe yi nga xam ne ànd nañu moom si liggéey bi nee na mu ngi leen di sant di ñaan ñu fekk koy at yu bari bari bari te lépp ànd ngërëmal sëñ bi kon nag day tool yoo xam ne toolu ngërëm la te sëñ moom dimbali jaam yi doo tax ndax xam nga ni li fi ne sëñ bu ko neexoon du woo kenn mën na ko liggéey ak ay dongom waaye nag bëgg ñëpp jariñu donc sëñ bi woo ñëpp bu ñëwee mën a mën a ñaq mën a jëf ngi liggéey mën a dox kon nag waa presse bi bàyyi ñu kenn ñu ngi sant ñëpp seen taxawaay rafet na ñaan seeni i bi àgg ba si àdduna bi yëpp mboolem mboolem fi compte naa nekk moom man fa àgg si bàkki Cheikh man Fadal bàkki sama maam bàkki Fadil mi xam ne moo lañ fekk si. gàtto sant yàlla jërëjëf Salaam sant sëñ ak Cheikh Abdoulaye. di ziar si sëñ Sëñ Bad di ziar si am sa sant baax di la gërëm di nga xam ne képp ku la woo ci liggéey bi sëñ Tuubaa laa bëgg dimbale moo tax mu bëgg dimbale moo tax ñu woo ci liggéey bi di sant sama mbokk taali bi ñoom àndal nga xam ne lu ma ne ma nekk ci ak moom muy ba daal di ma ñu noonu fédération bi foo ci àdduna am na ci yëpp sëñ Badalay mi seen dara fekke wu ko loo fi gis moom dee rek ñoom ñoo ko def ànd koog man kon nag maa ngi sant di leen gërëm di sant suñu am sa sant mbokk taali bi yëpp dama wax sama xol yow seet ba mun ma ko wax bande yi nag dañ koy bor bu ñuy fay ndax seex la dig naa bis bu dee sax suñu fa añ ko kon bu ñuy di ko bendal fii rek day bu ñuy fay suñ ko mën a bu ne suñu bool bi dinañ ko sëñ am sax ngir ngir ngir feddali euh, ndax sëñ Balla ñu ko sëñ Fall googee bañ ko mën dem bis bi ñëwee luñ ci am luñu ma dañ ko def ngir dimbi sëñ Abdu Lahat ndax jëf jur fu ñu la woon sëñ Fall mënuñu koo fay waaye ñu roy yonent bi salaam ni ko mooñ ko ñëpp dañu roy ci moom kon nag bu gisee suñu waajur dox lu mel nii ñu judd fekk ñu dégg lu mel ñu def ñun tam loo ci lu ñoom lay rey ndax ñu ko def doo romb fii lu ñu xeeb nañ ko lu ñu def lu nekk war nañoo def lu ko jiital ndax nga gis ñu teg ak mag gi yëpp ak gi dafa bàyyi lépp taalib gi ñu gi jaayante mu nangul ñu ko tax xool ci leen lu taalib mi xool ji moom kon ni sant dem dina gën yow lépp ma ko sama xol dafa sedd